ñu leen di sant yéen ñun ñu taxawu lii. nee na mu ngi ñuy sant bu baax ñun ñu taxawu lii. ci seen sembu yi. ci sunu sembu mi. dañ koo def ngir liggéeyale ko sëriñ bi dañ koo def ngir liggéeyale ko Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacké sunu sang ba. te jiitu woon am na beneen liggéey bu ko jiitu woon. nee na am na beneen liggéey bu ko jiitu woon. ah ngeen taxaw ca temm. ñu taxaw sa temm. ba yàlla matal ko. Yalla àggale liggéey boobee. ngeen sémbaat bii. ñu sémbaat bii. yàlla ko suñu borom nangu. yàlla na suñu borom nangu liggéey bi. defal leen ci lu kawe seen njort. te defal ñu ci lu kawe suñu njort ñun ñëpp. ngërëmul sëriñ bi rek la ñuy dàkk. sëriñ bi rek la ñuy dàkk. moom ngeen ci lii itam. moom ci bi tamit. ko am ñëpp ko defal ñu am ko sant nañ ci bi. sëriñ bi sant na bu baax ci bi. fay def sëriñ nga koy defal fi lu fi waaye def serigne abdullah Mbacke sunu sang ba nga ko defal. waaw ndax njëmbatam la. ndax dekk bi ñeematam la. ku jëmbat ñeematam nak ku ko soxat le jëmbat jëmbatam képp ku ko soxat boo ko yëgee boo ko yëgul la gërem na la. boko yegge ak boko yegul lepp gërem na la. lii ñeematam rek la. mu ni li nak suuxat ñeematul serigne abdullah la. yalla nañ ci am gërem kon yalla nañ ci tassé ngeureumum sëñ Sidi mi nga xam ne moo ko fi nekkal itam. sëñ Sidi mi nga xam ne moo ko fi nekkal. te lépp lu ñu fi def ñu ci ci ci ndigalam. te lépp lu ñuy def ci dëkk bii ci ndigalam lañ koy defee. nañ ci am ngërëmam yéen itam. yàlla nañ ci tasee ngërëmam. ngërëmul képp ku tax ci sëriñ bi. ngërëmul képp ku tax ci sëriñ bi maanaam njabootu sëriñ Abdou Lahad yëpp ñu am ci seen ngërëm. suñu xol sedd na ci guy. sëriñ Baara mu ne xolam sedd na guy ci lii. ñaan gën ci ñaan nag mooy. nee na ñaan giñ ci ñaan nag mooy ñaanuk Seydina Ibrahima. ñaanuk Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam. ba muy taxawal kaabatu la. ba muy taxawal kaabatu rasul. dafa ñaan suñu borom. dafa ñaanoon suñu borom. li ko rabbana. li ko rabbana. taqabbal minna. taqabbal minna. innaka. innaka. anta samiihul aliim. anta samiihul aliim. leerug Tuuba. wa is yarfahu Ibrahima al xawaahida wa إبراهيم إبراهيم القواعد قواعد من البيت من البيت إسماعيل إسماعيل ربنا ربنا تقبل منا تقبل منا إنك إنك أنت السميع العليم أنت السميع العليم ba muy teg xeer wa comme ni ñu def nii. <coughs> nee ba muy teg xeer wa comme ni ñuy def nii. <coughs> la ñaan loolee. la ñaan ñaan googu. yàlla yàlla na ko suñu borom ñu ko nangul. yàlla na ko suñu borom nangu. nangu googee nag ñëpp xam nañ ko tey. <coughs> nangu googee ñëpp xam nañ ni suñu borom nangu na ko. lii nag yàlla tax yàlla na bokk ci loolee rek. na lii na bokk ci liggéey boobee suñu borom nangoo ko ni mu nangoo liggéey boobu